ña daa xiiru ak ñay mat seen gëñ ya foq nañ sa bawkat seen gémmiñ yi saañ nañ ko Moustapha ña daa jabar ña daa xaatim ak ña daa luxus yalax nañu seen xam-xam ya far toppi Moustapha sigil te weytoo madru yi tuub nañ ci yow bu wér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 ci waaw mbaa ci waawaaw mbaa ci woowoo nga tollu tey ku ñëw rek ku jëkki jooy ndeyaa doon Mustafa walaf nee na woote bi yàlla moo gën bu nit di def defoo kenn deful yàllaay borom kun fa Mustafa walaf nee na am xel nangu dem téléphone nelaw am xel na ànd ak dem wuy ji Mustafa la Seex Bamba noon waa réew mi yàlla ma ku dib dof na tuug ni xel wa dew fekk Mustafa Sëriñ Bamba tuubal nan la ñëw nan bi jaayikum te salaaw dootu nu dellu wel nan ci Mustafa ndax ganaar nenam yaak siqiya cuuj kulluhum borom gamb baa moom lépp naaw tal nu Mustafa Cheikh Mustafa mi maay mujjisaatam fardi lamiñ wa koy waxal wa kallama rabbul harsi Musa bi Mustafa lu jin bambay njaag te mooy njiin fa Mustafa ku nag jikkoom war naa liggéeyal si Mustafa cheikh moustapha géejum ngëneel waaju ak si duy ku mar bay xondooj yaa tey ma ngay wal fa moustapha ndoxo maa ngi wër tuuba ay nu rahmatin waxay nuuri daa dem leen dëkkee ki say ihdi jami anna siraat almustaqim لك خطابي يا خيب يا مجيب يا من به لزماني خير الحديث هب لي وللذين قد تعلقوا أطلتنا بك عليك يا رخيم يا من به ينظر له كل نبي يا ذا الصراط المستقيم هب لنا هدى به يا بيتنا bismillaahi rahmaani rahiim alhamdulillaahi almuiin wasalaatu wasalaamu ala alhaadi alamin sayidina wa mawlaana muhammadin almakin wa ala alihi wa sahbihi wa xayra xadimihi sëriñ bi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. section ci njiitul sëriñ Moustapha Dieye ak section Dakar ci njiitul sëriñ Omar Mbakke ak soxna Mbooju ñu fekk ci Thiès ànd ak ñoom jaar njaareem ci sa taalube bu rëy yi tëba Baye Tedd Juuf mu yendoo leen berndeel leen bége leen ñaanal leen ci wërsëgu boppam sëriñ bi mbooloo mi namal nañ jataay bi lool nam lool itam section Thiès gi ma tudd léegi dañoo wax ni noo bokk lu nuy wut bokk fu koy wute bokk nun koy wute kon du jar dakaar di jël kàddu Thiès di jël kàddu genn kàddu rek la loolu nag lu rafet la te lu dalal xelum kilifa la ci bu sag njaboot demee noonu nu bën nu bëggan kàddu gi nu def ko ñeenti xaaj xaaj bu jëkk bi dañ ci sant suñ borom tabaraka wa taala bu ñaareel bi dinañ la ci ñaanal bu ñetteel bi dinañ la ci won sunu engagement bu ñeenteel bi dinañ sàkku ci yow ñaan sëriñ bi noo ngi sant suñu borom tabaaraka wa taala tey yëg tey gën a nangu ak moomeelam ci nun te muy moomeelu bind di ko sant ci mboolem xeeti cant yi yey ci turam wi ci turam yi ak melokaanam yi waaye di fedd li sunu cant ci moom tabaaraka wa taala ci boole gi mu nu booleeg Sayxul Xadiim waaye di ko gën a santaat ci xirtal gi mu nu xirtal ci liggéey bii ba tey jii mu dogal nu mën a jàkkaarloog yow te na man ko lool ginnaaw cant yooyu ci sunu boroom te mënuñu koo sant dëgg-dëgg li nu yëg kon li gën a wone sunu njaame sunu diggante ak moom te mooy toroxlu ci kanamam won ko ni amunu mënunu xamunu te am nañu bëgg bëgg gi nu am nag sëriñ bi fii nu toog li ci jiitu mooy nu ñaanal la sun boroom dollee feeñal coobarey kiimaanam ci sa fànn wi ak sa wér gi yal na la fi sun borom gën a yàggal lool te yàgg gi ànd ak wér ak man ak tal yàgg mboolem njaboot gi nga xam ni ñoo nekk ci sa suuf ndax ay rakk lañu ay doom ak i taalube ginnaaw ñaan yooyu nu lay ñaanal te tibbe ko ci sunu xol te muy dëgg ci nun noo ngi lay wax sunu engagement sëriñ mut Lam lamin Lamine Gaye Firdawsi dani li mu sante yàlla mooy bi sëriñ Touba wootee xam na ni ku wuy siwul rek mën ngaa bañ a baaxle te moom nag munta wuy si mukk te ci sarixa xaju set wicc rekk lañ koy woo mu ne nag sant naa yàlla bi sëñ bi wootee ma wuy si ba noppi fekk sëñ bi woote sarixa xaju set wicc ak jaamu yàlla gu leer nañ ci loolu lanuy jaare wane sunu engagement tàmbalee ko ca sa mag ju baax ja di kenn ci nun di kenn ci yow doon sa sëriñ di sa xarit defal la jëwrin doy loola ci lu bari ci biir réew mi ak bitim réew ngay wéttalam di doom di ko wuutu ci bu mënta dem muy sëriñ Mouhamed Mbakke nun li nu koy sante mooy liggéey bii munu xirtal ndax nun kat ci moom lan tàmbalee xam-xam bu leer leneen lu mu lu woon rek danañ ko ci wuy si lu mu lu joxañ danañ ca ne problème kay mi ngi doon amee ci mu woowan nu ci lu bokkul ak lii nu di ca dox ba yàgg nu gëstu sëriñ seex keroog la problème di am ndax lii nu gëstu xam ko ci sëriñ bi yëg ko taseeg mu xirtal nu ci te joxañ ko ci amel nañ ko ci cant gu rëy ndax lu dul woon loolu rek problème dana am ndax li nu ñam ci sëriñ Cheikh xam ko ci mu leer naññ mu jaral nu sunu lépp ci fépp ak sunu ñëpp nu wax ni liggéey bii sëriñ bi foofu lañ ci toll mu mel ni ameel nan la ci biir liggéey bi nag geneen cant ak leneen njukkal bërki démb jiinu weesu rek woote nga fii ci tookër bi teg xeeru tàmbali liggéeyu lycée bu ñu war a amal ànd ko ak njaboot gépp sarak yi ma tudd ak doom yi ak taalibe yi fekk na loolu sëriñ bi di sunu bëgg koo xam ni mësunoo jóg ci di ko bëgg ndax lu ko ëpp doole ci liggéey bi mës sa am te du am nu di ko bëgg ba fi sëriñ Mouhamed nekkee mu bëgg leenu ko mbaa mu gën nu koo bëgg waaye taxul mu sotti nu wéy di ko bëgg bi fi sëriñ Abdou Fatah nekkee mu gën nu koo bëgg dinu ko bëggale ndax moo nu wen moo nu won yoon wi tax nu mën koo bëgg moom sëriñ Fatah ci ndigalul magam ja kilifa am nga waaye taxul mu sotti ndekete booba sëb cëra ba yàlla dogal bëgg googu doon bax ci dënn ak xoli taalibe yi te mooy wéyalal sëriñ Cheikh liggéey bi te yaatal ko te jiital ci njàng mi te jox ko ci yitte ndekete ci sa loxo la war a sotte loolu sëriñ bi nun ñëpp la ci ameel njukkal nun ñëpp la ci ameel ak cant ni nga ko naalee ci ndigalul a cheikh Mouhamadul Muntaxa laa ak taxawaay yam la ca won ak engagement yamu ca ànde ak yow te fekk mu waxal nu ko lu jiitu jëf jooja ci le 12 mai 2018 ci jataay bu mel nii te gën koo yaatu moom a cheikh Mouhamadul Muntaxa mu wax nu ni lii ngeen nekk da ngeen ma cee jiitu waaye waaye balaa jàmm am dama leen a dab dal di ni fa sëriñ Cheikh teggee woon ndëgguy tànkam ya fa laa teg sama yas loola ba mu ko waxee jàpp nañ ko te gëm nañ ko waaye ci sa loxo la ko firndeele fi nu dëgmal ci joxoñub sëriñ Cheikh bii képp ku ne ci suñ kanam dañuy mën a ànd ak yóbbaale la maanu jaar ci sa kaw jàng waaye kenn duñ tee dem sëriñ Cheikh képp a toll noonu ci nun nag te moo ko jaral nun nag xamuñu ko ci jaxasoo waaye Serigne Mohamed moo nu ci dimbali bi ñuy waaj 31 décembre 1990 ci jataay boo xam ni kenn du ko nettali te déggiwu ko ci kenn lu dul ci kàddoom jataay booba lan jëkk am ak moom ci jataay bu yaatu bu nuy wax ak moom ci liggéey bi booba dem na ba mbiri xat lool ndax nii jamono demee mësu fee jóg naka jekk gàllankoor day mas di am waaye bu gàllankoor amee ci la ñuy xamee jàmbaar engagement boobu la ñu am ginnaaw ba nag sëriñ bi nu di la ñaan mbooloo mi seen yitte rëy na waaye ju baax rekk la nag seen yitte rëy na lool waaye lu baax rek la la yitte woo loolu nag ci turu fédération bépp laa koy wax ñépp laa ko waxaale bëgg nañoo liggéeyal sëriñ Cheikh liggéey bu wér bu leer naññ duma ni sëñ Modou Sa duma ni sëñ Touba duma ni lislaam bu ma nee sëñ Cheikh lépp ngi ci biir bëgg nañoo liggéeyal sëriñ seex jumtuwaay yi liggéey bi laaj yépp nag yaa nu ko gën a xam ndax yaa ngi ci waar bi noo ngi lay tàllal sunuy loxo Mbàkke di ñaan ci sa barke barkeb jataay bii nga toogee ak barab bii nga toog ak barab bi nga fi toogal ak guddi gi nu dëgmal tam waray jataay bii lii sunu yitte lépp la cay ngëneel ci nun nga ñaan sunu borom mu jàpp ndalal nu ko la cay loolu rëpp mu sorlil nu ko wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. mbooloo mi. sëriñ bi nee na mi ngi leen di delloo ab nuyoo di am mbégte lool ci teew gi ngeen teewaat ci kanamam nee na mbégte mu ngeen ci am ak yàkkamti gu ngeen ci yàkkamte woon rek moo leen gënoon na namm moo leen gënoon a yàkkamtee gis ndax nee na lii ngeen nekk te sëñ Mamoun wax ko léegi muy jaayante gi ngeen jaayante ci liggéeyu sëriñ Cheikh bi nee na na ngeen xam ne su ngeen ko gisee ak su ngeen ko gis guddee cëg subaa ngoon nee na loolu rek moo ko ñor nee na moom amatul bëgg ndax daa jël ak bëggam dugal ko ci bëggu sëriñ Cheikh moo tax lépp lu muy def wala lu muy naal da cay seet loola fu ca bëggug sëñ Cheikh toll ak fu ca bëggug sëñ Cheikh yem nee na mbir mu ngeen koy seen muy dox su xamee fa ca bëggu sëñ Cheikh yem bu ca àggee rek foofa la yem du déplacé nee na kon nag su ngeen amee engagement bii ngeen am ñëw gaaral ko ko te mu wóor ko ne loolu dëggulu ci yéen ndax nee su ngeen ko waxutoon it xam na ko ndax nee na jëwriñam yi nga xam ne di ay kilifaam muy sëriñ Mbacke Mohamed ak sëriñ Abdul Fattah mii ngeen wax nàmpatal gi ñu leen nàmpatal ci liggéey bi nee na loola dara ump ko ci xamoon na jafe-jafe ya gënoon naa metti gënoon naa metti waaye téewut ngeen muñ teewut ngeen sax ci li sëriñ bi digle te xam ne lu baax ku ko bëgg faaw mu mett faaw mu jafe nee na kon nag su yàlla dogee mu toog jataay bii ngeen ñëw ci kanamam yëkkati kàddu yi nee kàddu yi su ngeen ko yëkkati woon it xam na ne loolu moo nekk ci yéen nee na kon nag na ngeen xam ne la yàlla waxoon ci alxuraan dañ ngeen def inna allaha ishtara min al muminina anfusahum wa amwalahum na anna lahumul jannata jaay ngeen seen bakkan ndax nee na ngi nee ngeen si liggéey bi seen bakkan la leen jaral waaye jaay ngeen seen alal itam joxe ngeen seen alal nee na loolu nag suñu borom lam ca wax mooy àjjana yéen sax xëy na du àjjanaa tax ngeen di def yéen bëgg sëñ bee tax ngeen di def ndax xam na ne ni ngeen bëgg sëriñ bi sa maanaam lii ngeen koy defal neexit bi mu am ci yéen sàkkuwu leen ci mu dugal leen fenn wala mu xañ leen fenn te noona nee na suñu borom sax ku koy jaamu noonu la bëgg ko ni jaamu mooy nga jaamu ko rek ngir ne moo la ko digal waaye doone ngir dama cee bëgg nangam wala dama cee ragal nangam nee na noonu ngeen toppi sëriñ Cheikh waaye nee na xàll woowu yi nag yoon woowu moom ci la nekk. nee na sant yàlla sant na yàlla bu baax moom itam nag ndax yàlla da koo defal tawféex tawféex ndax bëgg gi mu bëgg sëriñ Cheikh bi mu ko gisatul ñem fi bàyyi da leen ne defum sëriñ Cheikh doon seenu Baay Faal ba noppi leen a gis yàgg na koo wax fii mu toog nee na xamutoon ne dana fi toog te sàkkuwu ko te bëgg ko woon moom daa jàppoon na day toppee rek bi yàlla dogalee li mu dogal nag. suñ borom defal ko taw tawféex mu xam ne sëriñ Cheikh Mbacke fa mu ne wóor na ne keroog bi ñuy teg xeer bi ku andi woon sëriñ Cheikh maanaam kenn ku nekk ku xam sëriñ Cheikh ku ne man ngaa waat ci kaamil ne sëriñ Cheikh Mbacke bëgg na waaw loola moom ku fekkee jataay ba danga xam ne sëriñ Cheikh Mbacke bëgg na ndax loolu rek la bëggoon mooy nit ñi am xam-xam dañu réer kon nag nee na loolu ab tàmbali la rek waaye li mu fas yéene. mooy naa li sëriñ Cheikh moom néewut xam na yëpp waaye dund na ko ndax dund na koo ki magam te it sëñ Cheikh nañ leen ci te yéen ñii mu ci àndal tam muy yéen waa Ndakaaru ak yéen waa cees ak ñeneen ñi nga xam ne ñoo nekk ci fédération bi yëpp xam na ne yoon wi mu jaar wéetu ci ndax yéen ak moom yéen ci ànd kon nag na seen xel dal ci ne bu leen tiit dara bu leen ragal dara. na ngeen xam ne liggéey bii day nekk ji ngeen ci nekk te dëggal su ngeen ci saxee te boole kook nag jaamu yàlla gu wér ndax nee na loolu nag mooy li nga xam ne moom suñ borom dana koo digal digal leen ko digal ko ñëpp digal ko sëriñ sepp digal ko taalibe yëpp kon nag loolu moom du loo xam ne dañ ciy massa day sant kenn ku nekk jaamu yàlla moom mu fonk ko rawatina waxtu yu juróom ndax nee na julli dafa am solo lool am solo goo xam ne yonent bi sallallahu alayhi nee na bu ëllëgee bu ñuy seet jëfi nit ki julli lañuy ñuy njëkk seet su baaxee duñ seet ci des di naan gannaaw julli baax na moom yëpp baax na waaye nañ suñ seetee julli julli am yu ci ayib nee na dañuy seet yëpp te seet yëpp nag wóorub kenn kenn ku ne xam ne sa bopp seet moom wóorub waaw kon nañ def li nga xam ne bu baaxee duñu seet yi ca des te nee na loolu mooy julli nee na sant gi ngeen sant yàlla it xam ne mooy sunu borom moonu moom nee na loolu moo warub julit moo warub tal bi nee na mag ñi day léegi day lañuy ñuy jaawale sunu borom ak keneen waaye sëñ Tuubaa de nanguwu ko woon ay doomam nanguwuñ ko woon mag ñi yare woon nanguwuñ ko woon ndax nee na sëñ Modou Moussa de man mas naa ànd ak mag moo xam ne sëñ Ibra Ngoone Njaay la tudd fekk sëñ bi njaareem sëñ Ibra Ngoone nee na bi ñu agsee ci buntu kër bi sëñ Modou daa sumi dàll yi nee na ma for ko boq ñu ñëw ba ci kees ñu toog sëñ Modou woo bëkk néeg bi ne ko su sëñ bi yëngoo rek na yëg ne maa ngi fi nee na ñu toog fab diir bëkk néeg ba daw ñëw ne sëñ Modou ñëwul wuy sëñ bi nee na sëñ Modou jóg bàyyi ma fa dem to nekk fa lu yàgg bëkk néeg ba dawaat ñëw ne ma ñëwul wuy sëñ moo nee na bi ma ñëwee damaa fekk sëñ Modou boof ci wetu sëriñ boof nee na ma ñëw sëñ Modou teg loxoom ci sama bopp ne ne sëriñ bi kii Ibra Ngoone la tudd maa ngi moom a ànd ci fara yi la nee na sëñ bi ñaanal ma ma dellu toog fa ma toogan di xaar sëñ Modou nee na sëñ Modou nekk fab biir ñëw romb ma nee bi mu ñëwee ba ci buntu kër bi ma teg daal yi solu ko ma topp ko ba ci pénc mi nee na mu taxaw ni ma Ibra Ngoone ma ne ko Mbàkke mu ne ma jëmm ji ci biir kër gi de muy sëñ Touba ku ko xam da ko ragal moo ana yàlla mam ragal moom sëñ Touba ku ko xam mu ne ko yàlla kii ci biir kër gi muy sëñ Touba ku ko xam da ko ragal. moo yàlla mam ragal moom nag sëñ tubaa ku ko xam nooy def sëñ bi teg na sëñ Modou Moussa teg na sëriñ bi fi mu ko war a teg waaye xam na ne yàlla yàlla nee na kon nag jaamu yàlla moom mi ngi na koy digal bu nu ci kenn man nee na bu loola jàllee nag liggéey bi moom lépp a ngi ci ndax sëñ Cheikh tënk na ci lépp luy dund nit mi ngi ci biir liggéey bi socialement économiquement lépp rek sëñ Cheikh tënk na ko ci biir liggéey bi kon suñu sàmmonteeg liggéey bi te xam ko te dund ko nee na du ñu soxla woo wuti feneen leneen ndax lépp day am ci liggéey bi nee na kon nag nañu góor góorul te xam ne naa li sëriñ Cheikh moom moom loolu rek lay xool lu Serigne Cheikh bëggoon lu Serigne Cheikh bëggoon nee na loolu moom fu mu ko xamee lu mu ca mën dana ko def te it fas yéen la ko fas yéene àndal nee na mi ngi leen di ñaanal yàlla suñ borom dolli noo taxaw suñ borom dolli noo dimbali suñ borom dolli noo aar sun borom dolli noo suturaal. nee na suñu borom yàlla nañu suñu borom musal ndax nee na mucc kat moom la ñëpp bëgg mucc sëñ bi nee na moom la ñëpp bëgg nee na kon yàlla na ko yàlla defal. nee na lii nu li nga xam ne mooy tax liy tax suñu ko amee liggéey bii mel na ko sëriñ Cheikh bëggee woon loolee yàlla na ko suñu borom teg ci suñuy loxo. nee te su bu ko tegee sun suñuy loxo yàlla na suñu borom xiir ci liggéey bi ba du ju gis lu liggéey bi ba liggéey bi laaj ñu def ko sëñ bi nee na sant na leen bu baax. gërëm na leen bu baax jëwriñ yi ngeen àndal jamono june suñ ko gisee ñi ngi koy wax pasteur bu ngeen am ci liggéey bi ak xeer bu ngeen ci am ak njàmbaar bu ngeen ci am waaye nee na loolu nag dara ump ko ci nee na mi ngi leen di ñaanal yàlla suñ borom dool noo taxawu dool noo dimbali ba kenn ku nekk la mu gën a bëgg moo ko xam yàlla na ko suñ borom defal te loolu doon la gën ci moom nee na sant na leen bu baax gërëm na leen bu baax wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. مساكن mi الله مساكن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن wa barakaatu ñoo ngi sant yàlla bu baax bi ñu fekkee jotaay bi tey di ñaan yàlla sunu borom may ñu ñu fekkee wat ko ay déwén yu bëree bëri te sëriñ bi yàgg sunu kanam ñu yàgg koo liggéeyal barke borom Touba. ñoo ngi santaat bu baax mbokk yi jullit yi nga xam ne ñoo ànd ñun ñëpp mbokk taalibe yëpp di ñëw di wuyu si wuyu Serigne Touba gi ñaan yàlla ñu dajeeg ngërëmam ànd gi ñu ànd ak Dakar nag day ndigalu Serigne bi ñu war a ànd doon benn wane benn gi nga xam ne moom la Serigne bi bëgg suñu diggante. yàlla dogal na loolu feeñ na tey jii ànd gi tamit ànd gu rafet la goo xam ne mag ñi dañ ko daan ànd mu yàgg lool ñuy tuut tànk di ànd ak mag ñi dem ba tey jii ñu nekk mag ñi ñu war a féddali loolu ñaan yàlla. Euh, euh, poussé bi bañ a réer ci ñun noonee la ñu àndee ànd gi nag rafet na lool mu am cordination bu wér boo xam ne réunion yi jiitu dañ doon waxtaanante ba ak si tey ñu ànd ko ànd bu wóor a wóor oto yi bëri na mbooloo mi bëri nañ ba pare am nañ discipline te loolu rek la ñu xam ci mbooloo mi te mooy wilaya yaakaar naa loolu moom rafet na lool ànd gi tamit feeñ na ba ci kanamu sëriñ bi ndax jël nañu suñuy kaddu boole mu genn kaddu jël suñuy addiye boole muy genn addiye ñu jébbal sëriñ bi ñoo ngi ñaan yàlla ànd googu yàlla bu ci dara am kon xam naa noonu rek la ñu àndee. en tant que organisation ak euh, mbooloo ni mu jafee euh, dajale leen ba indi leen. coono bi nu ngeen ko doon dundee ndax mun benn jafe-jafe ci yow. waaw jafe-jafe yi moom jafe-jafe bànneex la ndax euh, man mii di wax rek lu ma ci sonn rek dama cee bégaale te loolu firnde gi mooy. ci suba rek bi ñuy bi bi ñu nee convoi am na nga xam ne ré loolu moom bokkul lu ñuy daje ndax nit ñi miis nañu loolu. waaye boo xëyee suba ñu wax ne waa Dakar a ngi départ ñu ñëw cees lu nit ñi sonnoon bi gendarme yi ñëwee ba ñu def convoi yi rek coono googu dañ na muy ànd gu rafet ñu agsi àndandoo tàmbalee ko Thiès ñëw ba njaareem ni ko Mamoun waxee rek ñoo ànd ñëw Thiès amul jafe-jafe yëguñu benn coono ñëw fekk bay tedd te nañ ko daan fekkee ci kanamu mag ñi mu dalal ñu teral ñu teraanga gu mat sëkk ak njaboot geeg yëpp ñu ñaan yàlla tamit ci jotaay bii sunu borom wéral ko sunu borom taxawal ko ba bu déwénee incha allahu taala ñu fekk ko mu taxaw ñu nam ñu daan teertoo benn jafe-jafe amuñu ko jafe-jafe gi yëpp mooy ak mbégte ak cant sunu borom di jiital nag Serigne mbakke Mouhamed mi nga xam ne lépp mooma képp kuñ ciy tudd rek moom mee la sunuy doom a ngi nii ñun ñii ñuy tàmbali amuñu woon ay njaboot ñu dem tey ji ba sunu njaboot nekk ci liggéey bi benn coono amuñu ñoo ngi ànd ak suñu doom yoo xam ne bu doon dañ leen a woo ci leneen boo boo leen fa fekkee dañuy nelaw waaye dañoo tàmbali Thiès ba ak njaarim kenn kenn kenn kenn koo xamante ne war na leen coono rek am ci ba ñu suñu njabootu bopp yi dama daan jàpp ne euh, oto yi dana xat goo xam ne koo ciy téye rek bu wàccee tànk di dox waaye mbégte rek lañ ci am benn coono amu ci waaw yëg-yëg bi mooy nangul gim ñu nangul sunu sunu sunu sunu liggéey bi nga xam ne moom yéeg nañ ne ñun lii ñuy sonn di ko euh, di ko di ko di ko di ko xërteeg suñu njaboot ndeke moom moo ñu ko gën a bëgg won nañu tamit nañu mi nga ànd ak ñun kon ñun lu ñu ci sonn doyul ndax moom mi nga xam ne mooy wut sëriñ bi moom wax nañu ne ñu lii ngeen nekk maag yéen ko ànd te ak benn gi bëgg la am te ñun tamit benn bëgg la ñu am kon alhamdulilahi rabbil alamin bi ñu bokkee ak bëgg fekk nañ ci moom taalibe gu mat sëkk waaye fekk nañ ci moom tam ab sang fekk nañ ci moom tamit président d'honneur boo xam ne moralement won nañu ne ñu fi ngeen nekk foofa la te ñun dañoo ànd ak ak yi ndaw ànd ak i ay jigéen te lool ak ku leen di dëgëral rek ñun ngay dëgërël te loolu moom la ñu wax tey xam naa ne ku fi jóge tey soo delluwaatee boo daan fooyee eh, dem daayira da nga yokk boo ci amoon ñaar fukk yoo joxe desal sa poos fukki dërëm boo ñëwaatee da nga ko dolli nañu sant di ko ñaanal mu yàgg fi ñu ngi leen di seereel dana sëñ Abdou mi ñu fekk fii mel na ne Serigne Cheikh lañ ci fekk dëgëral nañu ñoo ngi sant yàlla bu baax wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu